yéenekaay bi bi muy daje keroog ak médiateur yu APR yi muy Mahmoud Saleh di Mor Ngom Benoît Samb ak Augustin Tine fa la leen ko waxee ba wax leen ne ay pression mënut a tax may def lu ma narul mbaa may tànn ku ma doyul candidat bi muy tànnal waa Benno Bokk Yaakaar moom Macky Sall nee na xam na ko te it kitaabu na ne njëriñu réew mi la ciy jiital njiit réew mi Macky Sall kan lay tànnal waa Benno Bokk Yaakaar neb candidat L'Observateur na nañu jaxase bi mu gisee démb ak i kilifa yu benn bokk yaakaar ak yu bokk ci APR tey jiit moom président Macky Sall laas mi ngi ñuy xamal ne war na recevoir ñi ñu tuddee ci politique bi pôle de gauche parti Pastef la woon seen jiit la woon di sun Sonko lise ko mi ngi ñuy xamal ne ak tiitaange am na ci état de santé ci garde yi koy garde ca kaso ba am na kenn ko wax ci journal lise ko ne sun ko dafa feebal jamono ji ndax nanguta lekk paj mi ñu koy faj sax bala koy nangu dafay dem ba mu leer ko ne na mu koy soog a nangu loolu lépp nag terewul mi ngi garde li su di tem partem Pastef ak naataangoom yi ci yeewi askan wi ak i ñoom ñëpp journal Les ko nee nañu ñoo ngi dànkaafu ñuy dugal Ousmane Sonko ci kaso bi nee nañu lépp lu ko fa dar rek nañu xam ne ci seen kaw lay tegee ñu teggee noonee dem ci journal Vox Populi moom it mbiri Ousmane Sonko la xëy ci xëtamu njëkk ba di ñu fàttali ne mi ngi ci fukki li fane grève de la faim ak juróom-ñeent démb dafa defoon malaise ba dañu ko labat labatee yóbbu réanimation Sud Quotidien di ko dëggal ci xëtamu njëkk nee nañu Sonko mi ngi am mode réanimation source ne ko ci sànni tàccoom ca la toll ay awakam Ousmane Sonko fas nañu yéene sàkku médiation réunion tey jii ci haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme Bougane Gueye Dany di ñu wax ci source kii di Macky dafa war a libérer Ousmane Sonko balay lu ñuy réccu di ci xew le mandat nañu moom jiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany ab conférence de presse la gonte woon démb fa la président Macky ci njekk mu libérer Ousmane Sonko libéré waale te junni ak juróom-benn fukki détenu ak benn unité ci kaso bi te ñu jàppe leen ay détenu ay raisons humanitaires ba muy conférence de presse démb moom Bougane Gueye Dany yamu rekk ci waxi Ousmane Sonko ak i mbiram ndax Walf Quotidien mi ngi ñuy xamal ne moom Bougane Gueye Dany dal na ci kaw Khalifa Ababacar Sall ba xolam sedd nee na Khalifa génération lëmm la wor journal lay fa nañu li mu woote moom Bougane moo di ak dal ñu dali ci xët mu njëkk Le Quotidien fekki fa coowal gaalu looco gi déparé woon Fass Boy te teere ji ca Cap-Vert ci ñi na ci ñoom juróom-ñaar yu nekk hôpital ci xam ne yéenekaay bi nee nañu seenub situation doy ñi ñu fa fekkoon ñuy dund ñoom ñëpp ñoo nga ca Cap Vert toog di xaar kilifay Cap Vert yi Le Quotidien nee nañu kilifay Sénégal yi rek la ñuy déglu ngir seenu rapatriement ca Fass Boye ga ñu déparé woon ginnaaw yëngu-yëngu yi fa amoon bërki démb journal bi nee nañu ak dal dellusiwaat na fa calme après tempête tempan yu bënn mën naa dal nit ci histoire xale bu jigéen bii di Mama Koundoul yër leen xët mu njëkku libération moom Mama Koundoul ba mu réeree ba feeñ dañu ko jël yóbbu hôpital le gynécologue bi gis ba wax ko enquêteurs yi mooy kii ëmbul wasinul ba mu demee ba xam ne dilam kalaate na ca lay soog wax dëgg li ko ci dugal mooy dafa ne woon jëkkëram dafa ëmb bi mu demee ba ci biir ci la xam ne ëmbul mu rusoon dellu gannaaw tax mu inventé ab ëmb jël ay morceau di ko dugal ci biiram di ko takk pendant neuf mois di juróom-ñeenti weer yu tojul benn fan muy def noonu ummi ndaw di ndaw suñu doon wax naan moo fore mama kundul ca boori Senelec bu Castor libération ne nañu enquête ba feeñal na ne moom ummi ndaw moom ak mama kundul ay xarit yu yàgg lañu te xamoon na ne xale bu jigéen bi di mama kundul mësuta biir pire libération ne nañu mooy Mame Diarra Sène mi ñu gis mu dem ci site internet yi di dëggal ëmb mama kundul ndekete